petit alors commenté nañu ko ci réseau sociale bi yëpp vraiment du lu neex ñu ngi koy war mal nag ah ndax fi mu mm. euh, bokk mais allah kulaal euh, du loo xamante ne bi quand lu ñu rafetlu la mm. comme niñ ko waxee rek li ma li daloon Adji saal ci digganteem ak MC Niass rek yaakaar naa ne moom a dalaat ci sama diggante ak sama sëriñ bi sëriñ Mansour si Jamil ku ne xam na ne ñun ay taalibe Seydi Jamil lañu di nuyu waa daayira sopp yi bu Grand Dakar macha allah muy suñu sëriñ du suñu wasila macha allah ñu daal di jokk ci moom bàyyam ba euh, di jamin mu bokkoon ak sama maam ndax ja bokk nañu ñu ñu mu njëkk àndal ci Fass ba ñu sos daayira bi nga xam ne moom mooy daayira sopp na bi ñu nàmpatal ñeccu daayira boo xam ne ëpp na cinquante ans. ñi ngi ci nekk ñun ñëpp kon nag suñu kilifa la la daloon Adji Sarr ak MC Niass rek yaakaar naa ne moom moom ma dalaat ci moom di ko nuyu bu baax ñoom Ahmada ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. Mm. ak waa suñu papa yi nekk ci daayira Sopp Nabi bu Grand Dakar ñëpp ñoom Mbaar Diouf ak ñëpp ñoo ngi leen di nuyuwaat waaye nag dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla réew mi fi mu toll. du nit ak ak ak fi mu toll nii. ak mm. président Macky Sall képp ku koy conseiller danga ko war a conseiller ne ko président. ni ko avocat yi di waxee mu ne ko bàyyil ta nga toog waxtaan ak sa askan. Mhm. man loolu laa gëm. du ma wax nag dara lu jëm nag ci sama kilifa mais réew mi fi mu toll kuy doon digal président Macky Sall la doo ko ne jëlal nga dóor. man damaa paar man ja d'accord ma. Mhm. du ma wax kenn li nga def du yoon mais man damaa paar jàkko d'accord ma ndax réew mi fi mu toll mu dem ba ay say doomu réew di dee. ñuy wàcc di jàmmaarloo ñi nga xam ne moom mooy homme de ñuy rayante di defante rayante bi am deret di tuur yaakaar naa képp kuy kilifa diina ak kuy kilifa aada danga war a wax ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi xoolal noo defee wala bàyyil wala nga toog waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy sa adversaire politique bi tax xale yi wàcc ndax bëgg ko pour topp si ginnaawam bul xool ci kooku mais xoolal li nga xam ne moom mooy sa askan nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi cofante ay bopp ak xiif gi am Sénégal tey jii am na tey borom scooter ñi nga xam ne tey dañuy xëy daw pour mën a lu ñu joxalee seeni waajur mais tey mënuñu ko def ñaata boutique lañ ci lekk Auchan moom raxas nañ ko ba mu set ñoom bu ñu dégagé sax moom seen maafe bu dog la ñun je m'en fous ndax suñu commerçant yi ci réew mi sax mën a liggéey mën a jaay mm-hmm. mais ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañ ci yàqule xale yi di taxaw say doomu réew di dee yaakaar naa man kuy kilifa diine wala kuy kilifa aada mm. ku la mën a conseil ci àdduna mooy xoolal di nga régler Sénégal ba mu delluwaat doon benn Sénégal delluwaat ba côté bi fu nekkee woon man moom laa gën a gëm ni man en tant que taalibe moom Alaaji Maalik te xam naa ne bi bi maam Abdou Aziz Sy Dabakh nekkoon fi borom 40 ans da xalif zéro faute du doxalee nii bu fi Serigne Touba taxawoon du doxalee noonu bu fi Alaaji Maalik nekkoon du waxee noonu bu fi Baye Niass nekkee du waxoon noonu ñu dañuy intervenir ndax koy Serigne Touba ko jaayante boppam jaayante ak askan ba ba ànd ak tubaab ba wiir wiir maa yombe moom Alaaji Maalik jaayante ak askanam comme tey jii bu ñu ñëwoon tey fekk ñaari doomu réew mi am jote wala am problème ci lan ñu war a tëj kenn ki kii ne moo nekkul ci yoon kii ne maa nekk ci yoon kon yaakaar naa bu ñu ñëwee dinañ am neneen noo xam ne noonu lañ ko war a jàngatee noonu lañ ko war a àttee lu dul ndax ay moom ba ko ko fekk rek dañ ci war a sotti dox waaye yaakaar naa doo jël matt ak pétrole di ko ci sotti. Mm-hmm. man côté boobu damaa paar. man ja tukulóor ah d'accord ma. rafetluwu ma ko li ma rafetlu mooy na ñu génn toog waxtaan ñu pencoo ko. Mm. waxtaanee ko ndax réew mi ni mu toll nii droit doxatu fi. Mm. fu mu toll nii ko jumboori waxee moral rek conscience tranquille lay war a demee. waxtaan ba ci biir ba trouver li nga xam ne moom mooy terrain d'entente waaye tey boo fekkee xal muy tàmm nga naan ngay pousser. kee ki nga xam ne moo yore réew mi yore droit yore jàpp nga xam ne bu tey ji jàmmi réew mi ci loxoom la nekk nga ne ko avancel man jadama da d'accord ma. Ahmed Khalifa Niass aussi. alors Jimbori euh, euh, Serigne Mansour Sy Djamil kàdduum yooyu Ahmed Khalifa Niass dafa ñëw appuyer ko. waaw mais xam nga euh, liy njëkk di erreur. Mhm. ci ci waxtaan bi bis boobu. Mhm. xam naa waxkat yi tamit gisuñu ko. xam nga mooy lan. waaw Macky Sall président la mais nit kese la. Mhm. du dëgg nit kese la nit da ngay day def yëfi nit. du dëgg. seeta Macky Sall bi mu leen woowee ba mu ñëw simmiwul mbubum dara jaam loolu moo ko manqué de buur bu simmiwul mbubum dara jaam day xëballoo boroom xam-xam bu ragal moo tax gëmmal dóor rek lañ mun a wax boo yeexoon sax danaan gëmmal xaaj mbaa gëmmal xaj waaw non dañoo tiit ma ni parce que tey jii ma wax la dara dialogue bi léegi jox ma information dialogue bi. amul benn mais ana dialogue bi. amul parce que xam nga lu tax. dialogue ci njëkk xam nga lu tax ñi war a dialogue ñoo dialogue jiwul. Mhm. xoola Khalifa Sall wax na fa lu rafet. Mhm. ñëpp jàpp nañ ni wax na fa lu rafet. Mhm. xoola wax lu rafet ak wax sa wax est-ce que xam nga du benn. dëgg la munoon na faa wax waxam. mu waxoon waxam dina waxaale kullu ko am problème boobu xoola. du dañ ni Karim Wade problème bi xalifa am la am du noonu. Mhm. ñu dem ba ni ko tamit problème bi xalifa am la am est-ce que Khalifa bu waxoon waxam day waxaale ñëpp ñu am problème. moo tax nit dimension bi nga toll waxeel foofu di nga waxaaleel kull ku nga xam ni mu bëggoon naa wax te waxut ah man kat bi ma ci tolloo lii lii laa dund lii laa dund ci kaso est nit ñu fooguñ ne loolu nga bëgg a def diw mu tontu la walla du noonu. Mhm. mais fii yëpp ñee ñëwuñoo. maa ñëw ak affaire yooyu même Cheikh Bamba wax na lu rafet mais na wax ndar lan moo ko pertloo euh, meeru ndar bi mu teg affaire yooyu conditions yi ñu waxtaan si mais yi ngay wax noonu du sa wax borom wax ji bu ñëwee dina ko wax parce que borom wax ji mi ngi koy jëf am na wala amul. du dëgg parce que ñoom ay magi jëm la ba pare 1960 ba léegi ñu doon dialogue ñoo nekk noonu ba tey ñi fa wuute yëpp mooy ñi yàlla rey. gis nga pour man daje boobu dañ laa wan ne la ndekete ñoom buñ daan dialogue nii lañ ko doon dialogue moo tax ñun ñu fekk fi dialogue bu dul jeex. te dialogue bu sincère wul en plus. non pour tool nii est-ce que bu ñu woowoon waali magi démb xaw ma mu dóoral leen ko affaire bi du gën a normal parce que am na fa koo xam ne dafay fàttaliku benn dialogue bu ñu defoon dialogue national mu am lu mu ci fàtte mu wax woo keneen ki naan ko xalifa est-ce que yaa nga fa woon wala newoo muy Abdoulaye Makhtar Diop benn affaire rek moo fa nekk mooy ñaari euh, jaraaf yi fa daje xaw a juboo loolu dong nag man laa fa gis mu xaw a baax ci réew mi xam nga ngay wax sa waxu bopp ak ngay wax sa mbir ak ngay wax mbirum réew mi ak ngay waxal waa réew mi du benn yéen tamit da ngeen jaawale kilifa kilifa da ngeen koy jaawale chaque jour gis nga bu mu toll nii kilifa bu fekkoon ni dafa am benn tribunal bu koy layool tëj na leen yéen ñëpp. parce que bëri na ñoo leen di wooyee kilifa duñ kilifa. Hmm? waaw Bamba yow mii yàlla mun na def ci yow kilifa. xam nga Sénégal kan lañ jàppee kilifa. Hmm. kiy dindi xaalis di la jox. ak ki nga xam ni buñ la bu boo nekkee ci lu dul yoon mu jàppale la ci nga génn. ak ki nga xam ne nii moom da nga koy wane moom màggatum saay-saay la yow ngay pëti saay-saay nga ne ko mooy sama kilifa boo ma laalee ma woo sama kilifa gis nga kilifa. xoola fu mu newul sax day regle ay problème pro kilifa laa wax xarkan turam day régler ay problème am te moom du fa teew waxuma laa kilifa gu teew foo xam ne foofu yàlla do yàlla mayoon na leen sens bu rëy boo xam ne ku wax président bi dina la dégg pourtant président bi nit la am na discours boo xam ne boo ko yëkkatee même bu fekkoon ne moom dafa am lu mu denc ci xolam yaa ngi dégg mën na koo bàyyi yàlla dimbale la nga fekk si la gis nga tey dëgg alali yàlla la yaa ngi dégg xoola bàmba boo waxee dëgg dinga nga dee boo waxul dëgg di nga dee ñeme ba xoola ñeme dëgg ba dee ci nag moo gën ragal dëgg dee ci lu dul dëgg dem safara réew mi dafa toll ci ay mag régler ko léegi fi mag yi toog pour régler réew mi nanguwuñ ko regle ay xale bu ko régler si seen xel te xale xale daawul régler réew xale bu régler réew du arranger mag mag tamit bu régler réew te boolewu ci xale du ko arranger gëmmal dóor yaa ngi dégg loolu ñoom ñoo koy wax président bi ngir ragal ko mais président bi boo gëmmee dóor ñi ngay dóor bu ñu ximmilikoo fayu am na wala amul kon yow kay da nga ko xoola yow sax dangaa dugal président bi ci violence man su ma sañoon président bi ci boppam wax dëgg yàlla yàgg naa ko wax de man waxuma pour wër ko wala pour dara day tànn ay boroom xel ñu wër ko xelal ko wala fin mandat tey jii président bi lii lii président kese la lan moo leer Macky Sall ne ko yàlla dencal na ko leneen lu dul lii. kan moo mën a taxaw fii ci Sénégal ne Macky Sall bu paree ci président jeex na dootul doon dara amut. Macky tamit su fekkante ne moom dafa bëgg a jël léppam jeex teg ko ci président bi kese kese kese yàlla tegal ko ko ci kese kese mais tey xoola boo rafetalee tey xoola am na ruu yoo xam ne bërki démb ba tey dañ leen a dekkilaat xoola maam Abdou Aziz Dabakh boobu ba léegi kasetam yi télé bu jot teg tele bu jot teg waa maam Abdou ndax moom tegum kaset la ñu bàyyee wala jëf. est-ce que maam Abdou daan wax gëmmal dóor. déedéet mais ma ni maam Abdou ci boppam ñun teg kasetam la moom moom la su jublu woon ci mbir mi wala dafa jublu woon ñu roy maam ab ñu jëf li mu doon jëf. ñu jëf li mu doon wax parce que moom daan na régler ay situation mais buñ nee nii rek dañ lay gisoo waxi sëñ Abdou Lahad koo dégg mu fàttali la ko bëgg na laa wax wax jooju de mais moom du ko def da ma waxi sëñ Abdou Lahad léegi am na liir yoo xam ne xamuñu woon sëñ Abdou Lahad sax xam nañ sëñ Abdou Lahad kon lan lañ war a delloosi si sëñ Abdou Lahad Mbacké yaa ngi dégg yal na yàlla yokk ay leeram wanaat ko ay notaalam ay photo am xale yi mooy boo bëggee xam gor dëgg jëlal waxi démbam teg ko ci waxi tayam mm-hmm. du dëgg mm-hmm. tey pourtant seen mbooloo moomu yëpp benn baat doom bu fa boroom xalaat a nekkoon ba teg ko fa xoola doo romb baat bi munoo romb baat bi waaw mu ngi mel ni nga bëgg a dugg ci alxuraan bëgg a romb bismillah yaa ngi dégg mënta nekk gis nga Bamba. Hmm. réew mi danoo dof doflu di dof doflu di dof doflu ba xoola ni doon dof ni doon nite yépp far dof nee naa la seex Gaynde ma nga baal ma nag ñu ne Cheikh Tidiane da ko fekk Côte d'Ivoire ñu waxtaan mu reetaan xaaxataay te Cheikh Gaynde ma daawul ree ba xaaxataay mu ne ko mais yow bu ñu nekkee Sénégal doo ree ba xaaxataay euh, xaaxataay fii yaa ngi xaaxataay mu ne ko fee damaa gisul nit ku ma waxal. waxin la gis nga bu ñu dof dofloo ba réew mii ñu ñàkk jàmm di ngeen xam ni lépp looy def ci kaw jàmm nga koy defee paa yooyu ngay wax ay Ahmed Khalifa Niass ay diw ay diw diw diw ñooñu yaa ngi dégg tey jii euh, dafa tey jii euh, xam nga Cheikh Tidiane moo ko nettali dafa dem France benn waay gis ko fa ne ko sëriñ Cheikh boobu ba léegi maa ngi lay wër buggoon a waxtaan ak yow sëñ Cheikh na ko loo may doyee mu ne ko xam nga lu ma bëgg dama la buggoon a jox dara nga dellu Tiwaawoon ubbi daara def ko na ko sa maam daan defee xale yi jàng Cheikh Tidiane ne ko waa yow sama maam ba mu nekkee Tiwaawoon ubbi daara booba woon sa maam du ma nga woon ca mu ne ko waaw mu ne ko bu ma ñibbee Tiwaawoon ubbi daara yow nga ne fii ci France fu ma lay gisee ba jàngal la waa ji di ko xool mun ne ko yow demal amoo xel yaa ngi dégg gis nga loolu newoon ci ñooñu nekkuñ ci ñii may doomu diw sëñ Fallou nee na doomu diw ràkkal la fexeel bay diw c'est yéen yéen a jël réew mi ak kase ko ci ay tur mm-hmm. yéen da ngeen a jël réew mi yëpp xam-xamu réew mi kase ko ci ay tur ay sant yaa ngi dégg xoola nodd nodd na ngeen xam ni ci maysara la wàcc yàlla yonent bi ne sara bàyyil bilaal di nodd moo la gën a neex baat ci courage wax leen rek xoola ba pare bu ñu naree réer ñun mais nañ dellu ci njàngale Seydunaa Muhammad boo leen dellu woon ci Seydunaa Muhammad doo leen def lii xoola erreur bi gën a rëy bi ngeen di def nii kaay ma wax leen ko après Adji Sarr kaay ma wax leen seen coow lan lay doon mm-hmm. te coow bi dina ñëw xam nga ban coow la Bàmba xoola mm. bopp ñu xam ni dañoo kumpawu kan moo rey seeni doom moom ngeen di defee après Adji Sarr baamba ëmb dafa metti de. sa jabar ëmb fu mu nii nga ñëw di laaj ordonnance léeg-léeg nga fayeeku yóbbu sa jabar guddi gi on nga jël kalaandoo doom bi juddu nga daw defar ruuy fay marsan ndike yi nga xam ne dañu lay bindal ba bindal la sombi yaa ngi dégg nga ñëw génne ko ngénte li nga xam ni ñëpp a koy yàkkamti boo ngéntewul ñu xas la nga ngénte xottin 300000 600000 xarma yépp doom jooju nga sonn ci ba mu màgg jàngal école nit na ko tëbbal mu daanu dee. mu ne la dee na. c'est que foofu laa mais yéen nii ngeen bëgg a téye seen dëkk bi nii nii ngeen bëgg a téye seen dëkk bi nii. foofu laa bëggoon a rebondir waxal rek Jimbori loolu mooy nii nii ngeen bëgg a téye dëkk bi daal nii nii mais yéen da ngeen caaxaan da ngeen di caaxaan fi nga nekk noonu waaw fi nga nekk noonu caaxaan ma ne nii lañ bëgg a téye bi mooy cas bi nga xamante ne ah. bi moo ci doon topp c'est-à-dire que euh, police nationale dañu def déclaration ñoom ci rey gi ngay wax nii euh, police dañ ci def déclaration nee nañ ñoom reyuñu te euh, nee nañ ci biir manifestation yi aussi doon nañu gis ay